داري باب به قد قنيت اليوم عبدا بذكري وأني أطوفنا روى النار والسما نبس لقى لله عبدا مرتلا السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi nuyu monsieur ministre ni la indil nuyu sëriñ Mouhamadul Mountakha xalifa général des Mourides xafisahullah wa raxaaw muy nuyoo ak ndokkeel ak ñaan bu mu jëmee ci yow gannaaw bi nga xamee ne ñëwoon nga fi bi ngay nekk ambassadeur fii ñu demoon àndaw na nga dem nga siyaar ji ko mu ñaanal la loolu dafa amoon mbégte mu rëy bu ci sëñ bi amoon xam sa cofeel ak sëriñ bi ci xam tamit sag jàppale ci karawaan bi nga xam ne muy liggéey Serigne Touba euh, ci Gabon bi nga xamee nag loolu jàll na euh, yàlla dogal biñ la nommé euh, ministre Serigne Mountakha ñu demoon fa àggi ko ne ko ambassadeur bi nga xam ne moo fi nekkoon te mu ñëwoon fii ci yow nga ñaanal ko yàlla dogal na ñu nommé ko. ministre chef étranger bu Gabon ma am ca mbégte lool moom sëriñ bi ñaan ca lool daal ñuy yónnee benn bataaxal naa ko génne léegi joxale incha allah muy bataaxalub ñaan ak bataaxalub euh, ndokkeel ak bataaxalub ay yonent euh, ngir sa diggante ak moom waaye sa diggante ak karawaan bi ci jàppale yi nga xam ne yaa ngi koy jàppale ba bataaxal bataaxal bi mu noppee daf ma santoon ñu ñëw Gabon ànd ak caravane bi fekk la Gabon ca sa ministère jébbal la ko doon nañ sax programme yoon wi ba ñu nekkoon biir Libreville ñoom Cheikh Mbeng ak euh, Sëñ baado programme woon ba doxoon ci ay jéego ngir mën laa fekk foofu mën la koo jébbal euh, yàlla dogal bi ñu jotee ambassadeur bi mu xamal nañ dana jot incha allah rabbi pour ñu mën a am rendez-vous gannaaw bi maam Asta mu jox ko ak moom mu woo ma dem a xamal ne ma kat ministère bi woo na ma nee na Fatou mi ngi Sénégal bu dee suba ci 11h dana baax ñu mën ñoo gis man koo jox yóbbante sëriñ bi fekkoo ñu nekk ci aw yoon waaye dañ koo dagg ñëw ngir indi la yóbbante boobu. moo tax ne moo waral kon ñu ànd ak ak mboolem waa caravane bi nga xam ñoo nekk fii ci Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi ni toog ñu ànd ñëw indi la yóbbante sëriñ bi man la ko jébbal amoon nañ yéene nag ñépp amoon nañ yéene yi xër lool ci yow fekk la fii toog sargal la waaye nag yàlla def na temps bi xëy na moo xaw a xat waaye nag mbooloo mi nekk fii rek ci waa karawaan bi ak mbooloom nekk Gabon ñëpp benn lañu lépp rek ci liggéeyal euh, Serigne Touba ci la nekk Serigne Cheikh mbeng ma nga Amérique ngir yaatal foofu liggéey ba Serigne Fallou Tamba tamit dafay nekkut waaye kon da ko gis yaakaar naa àndoon nañ ci suñ yoon wu wu wu njëkk ba loolu daal moo doon euh, kàddu yi ngir di la gën a ñaanaat sëñ bi nga gën a jàppalewaat karawaan bi karawaan bépp nag ñi ngi lay nuyu di la jaajëfal di la félicité amoon na sa benn bataaxal boo xam ne ñoom bindoon nañ ko déposé ko sa ministère pour benn audience boo xam ne bëggoon nañ nga accordé leen ko ñu man laa gis mën na waxtaan ak yow tey détails yu bëree bëri incha allah ñoom xam naa ne soo delloo danga gis euh, loolu bu soob yàlla loolu daal xam naa comme waxtu wi xaw naa gàtt di la sant bu baax ci temps bi nga xam ne may nga ñu ko sa bopp euh, ngir fonk sëñ bi ngir tamit Euh, fonk ko tamit waa karawaan bi yëpp euh, bataaxal bi kon dama koy indi léegi incha allah man la ko jébbal lii daal moo nekkoon kàddu yi ci tënk soxna maam Assa bu dee danga nga ko mën a euh, traduire nga traduire ko ko نفيت الأذى عني فجل لي بأربتي سريعا بلا كد

avec la communauté mouride en général et avec nous, porteurs du projet de la caravane de Mayumba en particulier, et de vous encourager seulement euh, à, à, maintenir cette position-là euh, vis-à-vis du projet et de la communauté, et, et, de vous porter en personne nos prières les plus, les plus ardentes en vue de, de votre élevation dans les, dans les, nouvelles fonctions qui sont les vôtres, que vous avez toujours eue euh, avec nous.

Bien. Avant toute chose, je voudrais euh, vous saluer tous, en vos titres, rang, grade et qualité, et vous remercier d'avoir trouvé un temps pour qu'on puisse se voir, qu'on puisse échanger un peu, parce que depuis que j'ai pris mes fonctions, je suis revenu à Dakar trois fois, mais c'est toujours de manière assez rapide, parce que les agendas d'un ministre des Affaires étrangères C'est au-dessus des agendas d'un ambassadeur et on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais donc vous dire merci pour la circonstance. Et j'ai bien reçu le message du Khalif général des Mourides. Je voudrais avant toute chose le remercier lui aussi, lui souhaiter longue vie et lui souhaiter la foi et la sagesse continue dans les orientations qu'il a pour la communauté mouride. du monde entier. Je voudrais lui réitérer mes sentiments les meilleurs pour l'ensemble des prières qu'il a toujours su proférer à mon égard depuis que je suis en poste au Sénégal et que je lui suis infiniment reconnaissant. Il faut le lui dire. À vous, mes frères et amis Mourides, nous sommes liés par le destin. Ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est Cheikh Amadou Bamba qui a choisi. C'est Dieu il est orienté vers le Gabon, ce qui fait que nous avons des liens. Et je puis vous assurer que ma nouvelle position de ministre, loin de l'affaiblir, elle va nous renforcer dans les choix, dans les ambitions et dans les directives qui sont les nôtres. Transmettez à Sérène Muntara les pensées les meilleures du Gabon et dites-lui que son chemin qui a été tracé par Cheikh Amadou Bamba sera accompagné par l'ensemble des autorités gabonaises. Parce qu'il vous souviendra qu'on avait hésité au mois d'août dernier à cause des élections. Les élections ont été annulées parce qu'il y avait beaucoup de vices de procédure. Donc les maires de Mayumba et de Lambaréné sont restés en attendant qu'on désigne des délégations spéciales. Les projets donc sont là. Il nous revient ensemble de les faire avancer au plus vite. Vous pouvez compter sur ma totale disponibilité dans ce sens. À côté de ça, à l'endroit de l'ensemble des caravaniers du monde entier qui souhaitent venir à Mayumba, je puis vous rassurer que là aussi, aucun problème ne se posera. Au contraire, toutes les facilités vous seront accordées pour que ce pèlerinage, cette fois-ci, se passe de manière meilleure que les fois précédentes. Il vous souviendra qu'on avait recensé ensemble les erreurs des fois d'avant. Et on avait dit qu'il faut se préparer mieux et en avance. Donc, nous n'avons pas d'excuses parce que en août, nous avons laissé passer le temps. Maintenant, nous n'avons pas d'excuses pour réussir. Moi, je vous dis, totalement disponible. Mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp du Gabon, je vais vous le donner. Essayons ensemble de mieux nous préparer pour que la prochaine caravane ait un succès encore plus grand. Ça, c'est la mission que Serigne Moutara vous a confiée, mais que j'ai partagée et à laquelle j'ai adhéré. Le deuxième projet, c'est la mosquée de Mayumba. Il faut qu'elle voie le jour. Et je vous le dis, le président, quand je lui en ai parlé, on est dans une phase de transition pour deux ans. Et en deux ans, on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste qu'on ait la volonté. Ce n'est pas un problème de moyens. La communauté mouride a les moyens. C'est une question de volonté des hommes. C'est tout. Ce qu'on peut faire en six mois, ou deux. Il faut juste qu'on mette la volonté. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un d'engagé. Sur ce plan, il n'y aura pas d'hésitation. Cette mosquée doit avoir le jour pour l'intérêt qui est le nôtre à tous. Et j'ai expliqué au président que pour vous, comme pour Il s'agit de faire de Mayumba une ville sainte, la ville sainte du mouridisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur ce plan, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faudrait que les gens reviennent sur les traces de Cheikh Amadou Bamba, qu'ils se retrouvent, qu'ils s'inspirent de son histoire, qu'ils s'inspirent de ses révélations. C'est ça l'histoire qui nous lie tous. Et il faut que nous travaillions pour ça. Les problèmes de terrain seront réglés très vite. Maintenant que je vous ai vu, je vous dis, ça va être réglé très vite. Je prends l'engagement dès que je rentre. J'appelle le maire de Mayumba et je lui dis, le président m'a donné les directives, il faut que ça aille très vite. De votre côté, vous me dites quand est-ce que vous êtes prêt. Ma seule difficulté, c'est mon agenda. Je voyage beaucoup. Mais si je suis à Libreville, si on peut se retrouver, on se retrouve et on travaille. Comptez totalement à Serigne Moutara Mbacké. Que ce que j'ai commencé à faire avec vous ici, on va le poursuivre au Gabon. Parce que simplement, de toute la communauté sénégalaise, je sais l'attachement qu'ont les Mourides pour le Gabon, mais je sais aussi l'attachement personnel que vous avez pour moi. Donc il n'y a pas de raison sur ce plan-là que je, vous soyez déçus, qu'on soit hésitant, non. Il faut qu'on avance ensemble et qu'on réalise sous son magistère C'est lui. Il faut qu'on le fasse sous son magistère, de son vivant. Moi, c'est lui-même me l'avait demandé, vous vous souvenez, une fois, quand il m'avait reçu, on en avait parlé, je lui ai dit, sous son magistère, on doit pouvoir faire quelque chose. Voilà. Inch'Allah, on le fera, vous pouvez compter sur moi. Hein? Voilà. Tous ceux qui sont souvent à Libreville, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone, je vais vous le donner. vous appelez quand vous êtes là. Si je peux vous voir, on se voit ou au bureau, ou même comme ça, autour d'un verre, tranquillement, et on essaie de faire avancer les choses. Hein? Mais le challenge, c'est août prochain. Il faut que ça soit une grande caravane, plus grande que celle qu'on a connue par le passé. Ça veut dire qu'on avait remarqué un certain nombre de déficits de communication. Il hein? faut communiquer, il faut mieux se préparer, et il faut informer le monde entier. Ce n'est pas une affaire seulement du Sénégal et du Gabon. C'est les Mourides du monde entier. Et les Mourides ne posent pas de problème d'argent. C'est juste une question organisationnelle. S'ils sont prévenus à temps, ils vont adhérer. Nous, on donnera des instructions pour les visas et tout le reste. Et l'organisation à Libreville, avec tous ceux qui travaillent, elle va se faire, Inch'Allah. C'est vraiment le message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Pour la caravane et pour la mosquée. C'est deux grands projets. Voilà. voilà. Et ça, il faut le transmettre à Serigne Mountakha, que je suis toujours le même et que je sais combien j'ai eu sa bénédiction. Le président va venir ici, Inch'Allah, deuxième semaine de janvier. S'il est là, on pourra organiser une audience avec quelques représentants de la communauté mouride. Et il vous redira ce que je vous dis aujourd'hui. Il doit venir ici en visite d'amitié et de travail. Le président Macky Sall l'a invité. et je prendre sur moi de vous trouver 30 minutes, 40 minutes, une audience avec le président pour finaliser l'ensemble de ces projets-là. Voilà. C'est mon message. Hein? Voilà. Merci. buñ delloo dinaa ko àggee te xam naa ne dana ci bëgg lool te itam euh, li nga ci bëgg lépp rek nga fas ko ci. waaw incha allah <laughs> waaw bu soobee yàlla daal message la bu neex a dégg des na ko jàllale di sant bu baax a baax. ci sa disponibilité ci lépp parce que sëñ bi loolu la xam sa digg ak moom ba tax muy bind ak di ndokkeel jëme ko ci yow ndax xam na sa taxawaay ci diggam ak moom ak ci sëriñ bi ak ci liggéeyu caravane bi